السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جلدي مبكي تالي ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara fii ci kër si Ahmadul Xadim di ànd ak mbokki kuréelu diiwaan doon ab banqaas ba bokk ci daaira tuuba li abdin muridin saadiqin lahum muy daayira bi ñuy tudde seeti seex yi ca ku baax ku tedd ak Seex Saalixu Mbàkke taxawaloon leen ko ñu ànd ak liggéey bi nag fii ci kër sëriñ bi ci njiital sëriñ Maam Mor Kayre ak sëriñ Ahma ak sëriñ Mbacke Amar ak ñi ci des ñëpp ci njiital sëriñ Abo Mbacke moom sëriñ Cheikh moom sëriñ Chouaïbou ñuy dox ci kilifteefuk sëriñ Cheikh Mahamadul Bachir moom Cheikh Abdoul Qadir mi sëriñ bi jox lépp lu aju ci màggal gi ñu ànd ak moom ci liggéey bi fii dafa bokk teg ñoom léeg-léeg saa su ci ne ñu daje waxtaane benn ponk wala benn tomb buñ ci mën a jànge ci sëriñ bi tey tomb tay bi nag mi ngi jëm ci sëriñ bi ak xam-xam taxawaayu sëriñ bi ci xam-xam gis-gisinu sëriñ bi ci xam-xam sonn gi sëriñ bi sonn ci xam-xam ngir boppam waaye sonn bi sëriñ bi sonn njaboot gi ci xam-xam waaye sonn gi mu sonn rek ngir xam-xam kon loola yàlla na jaadu na ñi koy tuddewoo ñëpp seen lépp ñu tekka ci loolu yi tax suñu borom subhaanahu wa taala lim njëkk sant jullit ni ak mbindeef yëpp saxit jàng lanu sant nan ko njëkk a def waaye ci sëriñ bi nag daf ñoo séddalee loolu yi benn bu ci ne nun ko war a defee bu ci njëkk ba ca topp ba ba ca topp muy wax ni ba ci njëkk ci yow yi nag mooy xam sa borom ndax laaya ja noonu la ko waxe bismi rabbik xam sa borom nag mooy tax nga xam loola lu mu xam loola tamit lu mu xam loola tam nu muy doxe mu nekk ay pàcc yu bari waaye mën naa séddale ko rek ci ñaar yoon boo xam ne ci ngay mën jaar ngir mën a dund fii ci àdduna mën a jariñu ci àdduna ñaareel ba nag mooy liy taxit ëllëg yomal xiyaam nga mën a jariñu foofu ca mooy ni nga doon dunde fii ci àdduna la nga cay tonawoo mën laa amal njariñ foofu ëllëg ndax xam-xam moom du gaaya waaye wasiila la aw yoon la wuri mën a jaar ngir mën a àgg ci jëmukaay ba kon nag yell na jaadu na farata la ci bépp mbindeef mu jaral la sa lepp nga tege ci ndax dañuy wax ne nit ki wala askan bi soo leen bëggee sànk da ngay fexe ba duñ xam nit ki moom boo ko bëggee sànk yàqal ko léppam da ngay fexe ba du xam nit ki nag boo fexee ba xamut sànk nga ko ndax Cheikh Mouhamadul murtada mu baax moom xadimal Mustafa da daan wax ni na ngeen xam ndax soo xamee da nga mën ca soo mënee da nga sañ ca boo sañee da nga sañal sa bopp waaye boo xamul doo mën soo mënu nag keneen a lay mënal keneen a lay sañal ca fam lay jëme ndax foofa dana la gënal loola taxoon na sëriñ bi ak njaboot gi fu ci ne fu mu mës a nekk luy yelloo ci xam-xam taxawe na ko fa lu fa xam-xam jaadu taxawe na ko fa lu ne dajit ngir xam-xam daj na ko fa ci njabootu boppam ak njaboot gin ko joxoon ak it képp ku mës a ñëw ci moom ci xam-xam rek la jëflante ak yow ci xam-xamit la seq ak yow ci xam-xamit la waxtaan ak yow ca xeetu xam-xam nag yépp bu ci mën a doon kenn ku ci ne ba nga ci indi ak bi yàlla ci yow xamle na nu na tamit xamle na ci ay bind ndax bim ñu digalee daf ni warlul naa leen lii ma leen digal taalifal leen ay téere yoo xam ni ci ngeen koy mën a xamee sanc na fu ci na tamit def fa daara yóbbu fa kuy jàngale yóbbu fa tamit ñuy jàng mu warlu leen seen lépp gàddul leen seen lépp ñu defa jàng lépp it waaye ba ci njëkk rekk mooy xam sa borom ba noppi doog a jàng yeneen yuy tax nga mën a xam loolu yooyu nag xeetu xam-xam yi da ciy dugg ba àgg ca xadis ba otlu bil ilmi walaw bi siin jubluwu ci rek jëmmi dëkk ba waaye barkeelum tudd gi ka sallallahu alayhi tuddoon taxoon na lépp lu jëm ci xam-xam xarala sa xel dana fa dem ca nag lépp lu yàlla lu jaadu lu jàkk ci ab jullit la yàlla lépp lu jaadu lu jag ci ab jullitit bu dee ñun fii sañes naa wax ni ci sëriñ bi la yàlla ndax nag li mu ci def ci liggéeyal xam-xam ci jëmi boppam limu mu defee liggéeyal xam-xam ci njabootu boppam waaye li mu defee ci liggéeyal xam-xam ngir àdduna bi war cee mën a jariñu ci anam tomb liggéey na ci lu bari ci anamuk bind liggéey na ci lu bari ci anamuk ndénkaane ci wax ay kàddu liggéey na ci lu bari ci xam-xam beneen bi nga xam ne sax dangay ànd ak moom di jëf ndax xam-xam boobu nit ku ci ne fam ci toll fala jàngale ñu ngi ci net la xësa yu bari liggéey lu na teg ñu war a gas mu teg ngas ko waaye ku jël ci tuddoo bismillah mun la bàyyil ku jël tudd bismillah mun la akaza liggéeyub yàlla ab liggéey dafa jaxasoo ak tur yàlla ndax lu ànd ak jaxasoo tur yàlla dafay barkeel liggéey lu na tamit ba liggéey ba sori mu ñëw tiralu liggéey ba ba am ci koo xam ne lam doon liggéey daf doon jàng alquran mun liggéey bu mel ni la bëgg boo xam ni dafay jaxasoo ak tur yàlla ca loola kon genn fànn la ci rek wane ni xam-xam yépp ba ci jëkk mooy tawxidu rabbina ak léppit lu koy dundal ak lépp lu koy saxal ak lépp loo xam ne day jaxasoo ak loolu bu ñu ñëwee ci dëkk yi boo ci mën a jël la tàmbalee ci Mbàkke Kajoor ndax daara la fa fekk li ci Mbàkke Bawal la ca Daaru Salaam ba li ci Tuubaa ba ci fi mu mujj a nekk laata muy génn ci Mbàkke Jolof ba muy dem dafa xaaj ñetti xaaj benn bi daf leen bàyyi Tuubaa ak sëñ Mbàkke Buso benn bi mu xaaj leen ñaari xaaj ñi nga xam ne danoo tolloo ci jàng xam-xam mu yóbbaale leen boole leen ak maam Thierno Ibra Faty ñi nga xam ne dañoo toll ci jàng alquran mu yóbbaale sëñ Daam Abdourahman mu yore leen ci loolu nga gis ni saa su ci ne ba mu koy mënal boppam moo ko doon defal boppam bi mu demee ba galfan mu wut ñu ko ca taxaw mu gàddul leen seen lépp kon ñi mu yar ak njabootam boo xoolee li nu def ci xam-xam néew ma amul ci àdduna bi de waaye néew na nga dem ci wenn sant wenn xeet wenn askan wu liggéey ci xam-xam wu toll noonu ci Afrique gii boo ko doon réewit ci yeneen gote tamit du fa yomb nga génn ko fa ci lépp luñ fa bind lépp luñ fa liggéey ci gëstu ak góorgóorlu ak parluk ndigalul sëriñ bi ci la amee boo demee tam ci bi muy nekk gànnaar boroom xam-xam yi dajaleen ci moom di tontonteeg moom di bind muy tontu waaye di bindit di leen jox ñu seq ak moom ci xeeti xam-xam yu xóot moo xam ci biir arab yi ni mu demee ak ay banqaasam ak ay dogitam ak ay catam ci làkk boo xam ne dafa barkeel ci xeetu barkeel yépp moo taxit luum noona waa gànnaar ci seenu ñaw xalima ci seen làmmiñ wu jot ci seenu fasaaxa ci seen xam jamono ci seenu dégg ak xam-xam bu yaatu ci ñaari xeeti xam-xam ya doon ndox muy xam-xamu adduna bi kese ak xam-xamu sharia ci ñaari pàccam benn ba dem ci wàllu liñ te maarifa muy tasawuf wala xam-xamu tawxid bu mu ci mën a tudd nga xam ne ay jaamukatu yàlla yu mag lañu ñu xam sunu borom ci anam yëpp waaye ku ci jëflanteeg moom da nga yëgal sa bopp ni ndeke kii ma seqal am na leneen lu ne ci moom lu dul jëmm ci rek may gis te loola nag la muy tekki sunu borom mooy ki ko dëbb tax mu mën loolu ndax mooy ki xarloo tànnal ko boppam faaw it mu indaale lu mel noonu njaboot gam fa nekk ndool yóbbu woon na leen ci boole leen gàddu yu bari ñenn ñi mbokki sénégalais yi jóge woon fii daan ko fa fekk si jàngal nañ leen ñeneen ñi tamit mbokki sénégalais yam fa fekk ñu géeju ci xam-xam jàngal nañ leen ñenn ña tamit mbokki naari gànnaar yam fa fekk ñu géeju ci xam ca seen xam-xam doyoon ko jël na ci njaboot tamit jox leen ñu jàng ci ñoom xam-xam xëy na dalu jar tudd ay tur waaye mënees nañ ci tudd mbooloo mu bari ñoo xamante ni bii loolu taxawu na leen ci wet googi naka noonu bi mu ñëwee dellu siwaat ci réew mi toog ci yéen it loolu la fa nekke woon ak ñoom ci xeeti xam-xam yooyu ci képp kuy am xam-xamit daan nga am sigéré ak contentement boo jaxasoo ak moom ci xeetu xam-xam ndax la nga fay jële ak lam lay dolli ak la nga ko indil ndax mos a dellool kenn la nga xam mos dellool kenn la nga am da ngay ñëw kañ mu jël la nga am jox la la mu am loolu nag mooy dund dunduk àdduna ndax xam-xam moom ñaar la da ngay joxe waaye tamit da ngay jël bi jamono suppikuwaat bam ñëw njaareem nga xam ni barabu fayaakoon la woon ci yëpp doon xew àdduna bi yëpp daja ci moom xeeti xam-xam yëpp it daja ci moom anam gën a tam daja ci moom mu def ci lu rëy bind ci lu bari sampit daara yu bari sampuk daara yi yu ci bari ci boppam mu jël sëñ nangam sëñ nangam sëñ nangam demal barab sàngam sëñ nangam demal barab sàngam sëñ nangam demal barab sàngam kenn ku ci ne nag sart bi la jox mooy ña nga fa nekkal ña nga fa fekk ak kola ko fekk na ngeen tege ci ñaar mooy xam ak xamle wet googu nag moo nu yóbbe tey ginnaawam ñëkk fi wutu ñëpp mu Moustapha daara ji taxawoon fii ci fii ci biir jumaa ji mu Mouhamadul Fadil dolli ko muy daaril maarif ñëw ci ñëkk fi wutu ba ci Cheikh Mouhamadou Mourtada liggéey bu yaatu bi mu fi def ba ci Cheikh du mbakke génn faat ma liggéey bu yaatu ba mu ca teg Cheikh Abdou lam ca préparé waaye lu ci na nag suñu borom waajaloon na koo xam ne moo war a yanu ñetteelub ndénkaanuk bëgg-bëggu sëriñ bi mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha bii taxaw liggéeyam bii mu taxawal fii ca bokkoon ci ñett yi sëriñ bi nësaloon ca la ca suñu borom dogal ko li ma wax ni saa bu naree dara mooy sabab yay tax yépp mën a daje ba loolu mën a nekk kon jërëjëfe Cheikh Abdou Lahad bi mu xalaatee ba fent lu mel noonu waaye jafe-jafe Cheikh mu Mountakha bi mu taxawee ci liggéey boobu nit yóbbu naa ko ci xalaatu ñetti téeméeri at kon vision gis-gis bu sori la amoon gis-gis bu sori la ci am waaye day muri di jullit yi fi mu ne nii fenn fu ne ci àdduna bi ñu ngi fiy jóg di wuy si liggéeyu sëriñ boobu ndax sëriñ bi ba muy ñaan def ne woon ci tuubaa daara joo xam ni fépp ci àdduna bi daan fi jóge si di fi jànge si mboolam xeeti xam-xam yi waaye rawate nag xam-xamu diine kon moom it liggéey boobu mi ngi ci sunu kanam ca dundal xam-xam la ànd ak xam-xam yàq la xam-xam jariñ nit ñi ci xam ndax lépp loo def xama ca gën lépp looy wut xama ca gën waaye soo ko ñàkkee nag ñàkk nga lépp kon ci wet googu murid di jullit yi ñu ngi ci taxaw ci yàqali ko ci yaatal ko ci taxaw ko ci daare ci Ahmadul Xadim bii na ci naal yëpp taxawe na ci liggéey bi yëpp taxawe ngir wooteeb sallallahu alayhi wa sallam boobu ca sëriñ bi waxoon ba bi ya jaddid sabil bila idan aw alami kon mooy tekki liggéey boobu ak ñim ko teg ci seen loxo si ahmadul badawi ak njabootu sëriñ bi ak mboolem jullit yi ko àndal ak mboolem universitaire yi nag ñëpp it ñu ngi ci biir waaye loola mooy tekki sëriñ bi ca mooy islaam loolu nag islaam du ñëpp mbokk la kenn ku ci ne lu baax la nga am islaam ak moom moo taxit boole na na lan xam boole lan am boole lan mën jébbal sëriñ bi ngir liggéey boobu mën a dox liggéey ba mën a woy liggéey bi mën a sell kon nag lii benn bunt la bu bu faram fàcce wut bu tënku bu jaxasoo ca kuréel bii di diiwaan di pàcc bu bokk ci daayira Tuubaa la Abdul Muridin ñoo leen ko doon indil seen mbokk Mor Faa Demba Kan moo leen ko doon jotli wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf